Aidara asalaamaaleykum ka doon laajte faali day a ah, ngooye ngi cay coupe du monde ba tribune yéen a kaay ne ma Sénégal day waaw ma ne la compliqué na mbir ma nag ma ngay compliqué mbir ma lool parce que Sénégal day waaw dana mere boppam nag parce que yow nga mën a yoon sa diggante ak Japon waaw di seetaan kon ba Japon di égaliser noonu ne eh. deux deux la kon démb match ba box bi ne ma Japon day waaw sotti nañu grâce Sénégalais yi lay maa la ko wax ma day waa Japon ah. noos ak bu mbay nga xam ne kon moo amoon ci ndakaaru njaay jël joob capitalu Sénégal waaw ma ne la saponay démb fay de noos amu fi de libération yi ne waaye nag ñi ngi gëm kon qualification bi ba léegi ni le laa la wax waaw ma ne la alxamis day la ñuy football nag suñ diggante Colombie record yéene kay gis nga suñ diggante Colombie googee alxamis waaw jàppale na final la de biir sax final dëgg la enquête yéene kay ne ma day day ah yàq ko de yàq nañ ko démb de parce que yow nga xam ne kon match nul lañ ko démb day gañ day waaw bàyyi loo xam ne day ma nga woon seen loxo deuxième tour Ndour Aliou Cissé entraîneur u gaynde waaw nee na la meilleure équipe sur le terrain était le Japon bu ñu waxantee dëgg rek waaw ma ne la démb Japon yi ñoo ñu mën aa Aliou Cissé wax du samay kàddu dee Aliou Cissé day ci la quotidien yéene kaay waaw nee na démb daal gisuñu woon nag am Sénégal goo xam ni bu rëy la un grand Sénégal déedéet entraîneur u Japon yi day nee na moom benn plan dong la ñu amoon de Sadio Mané bu mu gis nañu téye Sadio Mané kon ma mu ne nepp ñun looloo nekkoon suñu plan cay ba démb le soleil yéene seen bopp lu diis gaynde yi walaay teg nañ seen bopp lu diis pression waaw Last day. ma ne day ma ne nañ nag fi mu nekk nii seen bopp liggéey ba de Aliou Cissé ci libération yéene kaay nee na am na ca lu ñu miti lool am na ca parce que boo leen bëggee dégg-dégg day mais amoon nañ moyen yu ñu gañee match bi waaye man fi mu nekk nii li xew nii ma ne mënu koo sax expliqué laa wax parce que xam ni compétition yoo xam ni kon yu am niveau yu toll nii waaw ak ñun suñ joueurs yi nga xam ne am niveau dañ leen a dañ ñoo sax suñu Cissé war gaaw kon lépp parce que Sénégal mënul kon am pressing ci kamuy waaw Sénégal tamit mënul récupérer ay ballon dem nangu bali mu yomb lool aisément waaw day miti day mujj miti de opposition bi day yi dana miti ci lool waaw waaw gagné na bu ñu ci yo enquête ne fatigué waaw nañ Sall bi deuxième mandat amul sax ma dem te li ne ne maire xaan Diouf xaan Diouf mu siiw mi waaw école ne moom doonga ko wax dee déedéet parce saltige Latir Njaay day ah. nee na dama Sall ci boppam kon am na deuxième mandat loolee amul sax ma dem ñëw la la wax am na gisaane katu day ñoom ñëpp daanaka loolu lañ eh ne ma ne Sall day am deuxième mandat la ñu wax de ah. eh. waaye nee ñu bu fiy ci boppam rakk ja Alioune Sall moo koy remplacer yaa jum wala maa am eh Samba Alioune Sall day enquête yéene kaay nee waa Jeune Afrique nañ ko ko ca Macky Sall jóge fi yow Aliou nga remplacé ko Aliou am na ci ay kilifa yoo xam ne sax mais ñi ma koy wax ak di ma ci buus pour bu fi Macky Sall jógee man Aliou Sall ma remplacé waaye man loolee intéressé wu ma déedéet du ma toog sax ba géntu ko laa wax man Aliou Sall termine yéene kaay ne ko en tout cas loolu la saltigee gis de sama kay bu fi jógee yaa koy remplacé eh waay Samba mbéteeruwaayum le quotidien yéene kaay ne en tout cas saltigee day waaw waaye mbaabakumba musiba bu dee saltige yi waaw dañoo gisal Macky Sall mi lee ak waaw ma gisal luñ journaliste yi lu baax de marti daali xam le nanu ne am na ci benn journaliste boo xam ne day dana dee inna lillahi wa inna a rajiun ma ne la journaliste laa lay ni dana faatu ci réew te gis nga journaliste boobu ma ne la ñëpp xam la ilaha illallah loolee journaliste bu siiw a siiw la laa la wax métier mi kay ñëpp a ko xam laa la wax day dee de allahu akbar la ilaha illa allah oh. allah allah <laughs> waay yow lii moom ummati ah maa la ko wax day faatu de commerçant Modou Diop day faatu na bos sobi li ne moo taxi procureur day jugal na boppam de sëñ Bassirou Gueye maa la ko wax ma ne leen tey jii dañuy commencé déglu kon seede ya réew mi quotidien ne biir kaso yi nga xam ne nag maanaam dañ fay dóoraate di torture maritali ñaar fukki doomu aadama kon ñàkkagum nañ seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Karim Wade dee ba mu génnee ca kaso lañ ko gëj a gis turbine yéene kaay ne moo tax Cheikh Sadibou Fall day PDS tontu na Aly Ngouille Ndiaye de Aly Ngouille mii ne Karim Wade mii bokkul sax ci liste yi kon amul carte électeur Cheikh Sadibou Fall nee na Aly Ngouille Ndiaye li muy wax da ko fen Aly Ngouille raconte n'importe quoi le quotidien ne kay ne en tout cas Karim Wade mi nekkul ci biir réew mi day Cheikh Sadibou Fall waaw nee na Karim Wade nag il faut mu ñibbi fii ci biir réew mi la la wax parce que xeex wu ni mel day mënoo koo xeex nekk bitim réew ca dëgg-dëgg waaye PDS ci titre bi yéene kaay waaw nee waxtu ngir kon ci réew mi dama ne wu ni toll bitim réew whatsapp rek whatsapp rek anniversaire 23 juin ba day waaw professeur Abdoulaye na ñuy ne mouvement populaire jeex na ci réew mi waaw nañu nañu de professeur Issa day ci enquête ak waaw dañuy bokk ci élection présidentielle loolay dëgg l'observateur ne Farba Ngom day simi na Moustapha Cissé Lo dañ ko ci andam Farba ba ba mu neex guerre man Farba Ngom maa ne Moustapha Cissé Lo da doon ñëw sama di ma ñaan ma koy dimbali Cissé Lo bi mu amee ñaar fukki at la doog a am million man ba ma amee ñaar fukki at am naa ay millions laa la wax ëpp la santam gi muy organiser at ne waaw man Farba Ngom fukki nag laa doon may Moustapha Cissé Lo ma jox njëgu fukki nag laa la wax te Cissé Cissé Lo ndomb tànk yi nga xam ne parti bi ko ko jox yëpp da koo war a delloo uh-huh. Farba Ngom ne waaw parce que Cissé Lo amul baas mu naan sama kër gii ci almari xaw ma la nag la terrain bi bi ma koy am Macky Sall faloogul laa la wax <laughs> alaaji tey waa kër Macky Sall yi lee lijjanti leen suñu équipe bi nuñ demee deuxième tour lu ko mooy day walaay tama dana leen ëpp buum boo paree ma ne la alaaji tëjal